Ibrahima Gassama ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mbemba. journaliste nga. nekk itam kuy saytu li nga xam ne moo jëm ci conflit bi ca diwaanu Casamance alors ni ki tey la ñuy màggal bëccëg bi nga xam ne moom la ñuy wax wàllum jàmm alors ku ne jàmm itam xel yëpp day dem ca diwaanu Casamance daanaka ñeent fukki at ak benn ba tey ñu ngi ci conflit bi tey lan nga ñu mën a wax ci processus bi nga xam ne enclenché nañ ko daanaka ay at a ngi nii. waaw lu ma mën a wax mooy ni euh, jéego yi ñuy def ngir jàmm mën a ñëw fii ci Casamance euh, bu ñu ko méngalee ak la jotoon a xew mën nañoo wax ni euh, war nañoo sant yàlla ak sant tamit ñi ko sabab ndax tey ji bu ñu demee ba xaatim ay accords yi nga xamante ni du weer ngànnaay wante delloo ngànnaay la loolu nag dañ koy rafetlu lu tax ñu koy rafetlu mooy que bu mbir mi dooree ba tey jii Euh, xëy na dugguleet euh, ñuy xaatim yile accord mais gis nañ ni naka jekk accord cessez le la ñuy wax maanaam weer ngànnaay bu ci mujjee may bu ñu signé le 30 décembre bu fi Abdoulaye Wade nekkoon ba ñu ne ko mbir mi jeex na ay fan lañ ci teg ñu gis ni euh, fitna bi lawaat na wante nag guleet ñuy gis ay way fippu MFDC di gën ci àll bi delloo seen ngànnaay ba sax ñu jot kàllak loolu nag ay waxtaan ñoo ko sabab ba tax na ñi nekk jakaay ñoom ñoo njëkk xaatim yooyu yooyu accord euh, laata ñoom tamit waa César Atoute Badiate ki leen jiite di César Atoute ñoom tamit xaatim loolu kon nag loolu ay jéego la yi nga xamante ni buñ ko méngalee ak fu ñu jóge woon ak fu ñu tollu tey war nañu wax alhamdulillah wante nag euh, duñu wax ni dañuy tàccu cent pour cent ndax ba léegi mbir yi jeexagut Euh, benn banxaas wala ñaar ci biir banxaas MFDC yëpp ñoo jot a xaatim yooyu yooyu yooyu accord wante nag ku ne processus ne xam nañu fu muy tàmbale mais xamaguñu fu muy jeex ndax mën na jël ay weer ay at mais luñ ci rafetlu mooy jéego yi nga xamante ni euh, gis nañ ko euh, te MFDC ak nguur gi sabab. Ibrahima nees mën a def tey ngir ñu dem ci li nga xam ne moo jëm ci jàmm gu sax dàkk ci li nga xam ne moom moo jëm ci mbirum conflit bi ni mel. waaw mooy que résultat yi ñu am ci terrain bi ñu daal di ko dëgëral maanaam daal di ko bu fekkee bâtiment la yokk ciment mu gën a dëgër ndax euh, lu ñu gis mooy que uh, loolu loolu xëy na dañ koy ŋàññ dossier Casamance nguur gi uh, defuñu ko li nga xamante ni continuité la maanaam nguur gu ñëw du joxante lenge ci wàllu woowu ñu am yaakaar na président bu bees buy ñëw xëy na du def comme ñeneen ñi Euh, parce que Abdou juuf am na fu mu indi processus bi lay Wade ñëw mu ne moom li Abdou juuf def neenal na ko Abdoulaye Wade fu mu bayoon dossier bi xëy na président Macky bu mu ñëwee moom tamit ak stratégie am la ñëw kon nag lu ñuy ñaan mooy que loolu woon ni mu nekk li nga xamante ni rupture lay doon Macky fu mu bay tey dossier bi naatango wala président bu ñuy élire au soir du vingt cinq février deux mille vingt quatre mhm. mu xam ni dossier bi priorité nationale la maanaam bâtiment bu ñuy tabax la mu bañ a toj bâtiment bi mais mu jëlee ko fu ñu ko bay ngir néeg bi mën a mu mën a egg donc man je pense que bu fekkee attente la ci loolu la euh, une véritable consolidation dëgëral daal ak yi nga xamante ni bàyyi nañ ko fi. ñu bari dañu jàpp ni ci histoire conflit bi ci li jëm ci wàllum processus bi euh, ba ci sax unification MFDC bi ñenn ñi dañu jàpp ni objectif départ bi dañ ci daal di lajj. waaw loolu dama koy dëggal ndax man bokk naa ci ñiy gëm ni MFDC Ah, ni mu bindoo ak euh, euh, xiiroog ŋaayoo bi nu mu xóotee xëy na mënuñu wax lépp ci rajo mais man mi yàgg topp mbir mi di leen déglu di leen gis ah, jubali leen dina xawa a te waxuma du mën a am wante na dina jëlaat ay at ndax dafa xóot dafa métti dafa yàgg man daal lu ma gis mooy que MFDC nu mu bindu nañu dem waxtaan ak ku nekk ndax man mënuma méngalee MFDC ak beneen mouvement ci àdduna gi ba la jamakon bu muy dund xëy na euh, mouvement bu organiser la woon ndax amoon na el politique bu waxtaan amee jamakon mooy dem waxtaan dem na ci palais rencontré kii di euh, président Abdou Diouf Abdoulaye Wade donc toog nañu waxtaan mais loolu el militaire politique bi moo ko doon incarné mais bu jamakoun faatoo ku nekk nee na moom moo koy uutu ba indi na xiiroog ngaayoo ci la MFDC tas ba tey ji juróomi banxaas moo nekk ci biir biir MFDC donc loolu jubali leen dina xaw a métti moi je pense qu'il faut ñu dem dans des actions séparées def nañ ko ak jakaay def nañ ko ak César nañ ko wéyal ak Salif nañ ko wéyal ak banxaasu Paul Alukasi Bassène mais feuille de bi benn lay doon mooy jàmm ñëw fii ci fii ci Casamance. ñenn ñi dañu jàpp ni teg ngànnaay yooyu le ab simulation la rek euh, yow lan ngay tontu ci loolu ndax danga jàpp ñenn ñi jàpp nañu itam loolu du leen jëmale du am si. waaw xëy na xëy na du leen wax ni waxuñu dëgg ndax. Euh, boo jëlee li jotoon a xew yëpp euh, te wanewul lu dëgër am nañu am nañu sañ-sañ wax ko euh, parce que dañuy gis euh, peut-être balaa ñuy gëm mais man mi nekk ci terrain bi man mi nekk di suivre processus bi ñii nga xamante ni ñoom ñoo delloo seen gànnaay génn nañu ci àll bi euh, am na sax ñi nga xamante ni xam naa leen fii Ziguinchor fu ñu dëkk seen doom dugal nañ leen école donc tourné nañu le dos du ma ne léegi ñu <laughs> du ñu jëlaat fetal dugal ci dugat ci àll bi hmm. loolu xëy na dina xaw a métti ndax fu ñu jógee l'armée bi mu ngi fay samp mu fay mu fay occupé donc euh, dina xaw a jafe trop trop trop parce que tey dynamique bi boo ko gisee aspiration population yi ci wàllu jàmm dellu ginnaaw Euh, dina gën a gën a gën métti je pense que jëm kanam moo gën a yomb tey que dellu gannaaw mais nag euh, ils ont raison d'être sceptiques parce que xëy na lu ñu jot a gis la lu ñu jot a wone la mais ni ma gisee nit ñi taxaw ak pas-pas ak fulla buñ ci def je pense que buñ ko wéyalee xëy na Casamance dina tourner définitivement page euh, bu métti bi nga xamante ni mu ngi koy gis. ban place ngay jox ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa synergie ci processus bi nga xam ne mooy utum jàmm gi. waa am solo la parce que bokk na ci lu gën a nasaxal utum jàmm ji ndax euh, ñaar bu ñuy xeex dafa am ku leen di ñetteel mais ku leen di ñetteel bu fekkente ni moom it euh, jubawul euh, waxul benn kàddu day xaw a jafe société civile bi nga xamante ni moo waroon ñetteel MFDC ak nguur gi yàgg nañoo wax synergie xëy na am na ay avancé mais ba léegi am nay résistance am nay organisation yi nga xamante ni bugguñu rejoindre dynamique bi ñu ngi demal seen bopp loolu day xaw a nasaxal parce que lu dul jàmm am na yeneen plaidoyer yu ñu war a mëne pour développement pour retour population déplacée yi mais pour sulli ndel yi euh, fii ci Casamance kon nag euh, synergie bi lu am solo la. Mhm. wax nga ko euh, li jëm ci mbirum ndel yooyu le xam nga ni ay fan a ngi nii ñeenti militaire daanaka faatu nañ ci wàllum explosion mine googule ca zone sud fan la projet déminage bi toll ak fële nga xam ne moom moo di ca zone sud bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo d'action antimine bu Sénégal. waaw centre national d'action antimine bu Sénégal ci ku koy nekkal ci terrain bi handicap international ñu ngi sulli ndel waxtu bi ñu ngi ca arrondissement bu Niassia. Euh, parce que foofu l'armée bi euh, jëlee na fa way fipp yi nga xamante ni ñu nga fa donc actuellement déminage bi ñu ngi koy wéyal foofu mais fi nga xamante ni foofu la l'accident bi am ba nga tudd ko léegi ñeenti soldat ñàkk seen bakkan mooy bëtu gànnaar département Bignona mooy lëkkaloo frontière diggante Gambie ak Sénégal foofu musul am déminage ndax ñàkkum kaaraange gi tax na euh, agent CNAMS yi mënuñu fa egg ngir def l'enquête xool fan moo am del ak fan moo ko amul donc warul bett nit ñi bu fekkente ni am nay ndell ba léegi donte sax am na ñuy njort ni am na ñu teg ngànnaay yi parce que ñu teg euh, yooyu yooyu engin ndax foofu la euh, affrontement yi am actuellement diggante l'armée bi ak euh, way fi Poupol Lukasi Bassène wala Salif Sadio nga xamante ni ñu nga ca ca gox goxaat yooyu kon nag loolu c'est des zones grises nuñ koy waxee ci ci opération militaire yi mais ba léegi je pense que déminage donc moo war a tax ñu yombal dellu si daw laxu yi ndax dem naa Singuère Joola dem naa Bisin yàggut mais foofu ñu fa ñi dawoon ñu dellu siyaat ci seen gox-goxaat yi ñu dem fu sori ndax euh, ragal nañu ndell yaa foofu kon nag autant de chose yi war a tax plaidoyer pour le déminage lu ñu war a fullal la parce que war na nekk sax priorité ngir mën a gunge jàmm bi nga xamante ne ñu ngi koy yaakaar fii ci Casamance. Ibrahima yow mi nekk observateur ragaloo ni ak euh, génération bu bees bi itam ñëw ci dugg itam ci li nga xam ni ne moo jëm ci Macky bi jël rele bi ragaloo li ni mel. non ragaluma ko ragaluma ko dina xaw a jafe ndax tey boo gisee euh, sur le plan stratégique euh, bi matuwaay yu mu jël euh, dina xaw a jafe ñu dundaat lu Casamance dund du ma dina jeex tak tak tak mais quand même. Euh, fu mu toll nii dina xaw a jafe pour que MFDC redéployer wu encore créer yeneen base yeneen zone xëy na loolu euh, amaguñu les moyens parce que quand même mouvement bi xaw na affaiblir armée bi positionné na les moyens de l' armée renforcer nañ ko kon euh, dina xaw a jafe te buy am sax xëy na ay poche lay doon mais ampleur bu mu amoon quatre vingt deux ba léegi euh, yaakaaruma dina amaat boobu ampleur sur le terrain. yan xibaar nga ñu mën a wax ci ki nga xam ni moom moo di Salif Sadio. ah lu ma ci xam mooy que mi ngi dund xibaar waxoon na fi ni génn na àdduna. ci suñuy gëstu gis nañ ne mi ngi dund léegi nag fan la nekk ak lak la xalaat xëy na moom dong ak yàlla ñoom ñoo war a mën a tontu boobu boobu laaj. jërëjëf Ibrahima Gassama. jërëjëf Mbemba maa ngi lay gërëm. di fàttali ni taskatu xabaar nga ngay saytu bu baax bu baax li nga xam ni itam moom moo jëm ci conflit ba nga xam ni moom moo am ca diwaanu Casamance ñun ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi. merci beaucoup di rafetlu bu baax seen invitation. rafetlu bu baax seen invitation.